aca mbër lay ziar waaw ah, doolu ziar ngi si jàmm sant yàlla yaram bi lu muy yëg jamono bi yaram bi kay instant kay tàng jël la def lépp ngi baax yaakam bi rek heure bi kay laa yaakam ci gaañ waxal ñi ñu nga andi tey kay lépp di sotti ñu naan seydaan andi wu ma jàmm tey andi woo jàmm tey andi wu ma jàmm non andi jàmm ah parce que ñoom dañoo jël lépp jox ko kon moo yow moom boo ñëw kon da nga ñëw yow. Ndefleng mooy favori ci combat waaw loolu moom ku lay wax gars yi rek à chaque fois favori moom du dara favori ñoo ko tus moo tax nag man te man man maa ngi ko seetaan gu ma sët kooku ñëp ñoom ñëpp dañoo ne moom moo daax a xeex moom doole moo daax a lépp comme li nga ko and li nga andiloon Modou Lo lu ko raw laa koy andi li nga and loola non kooku dama foog moom rek kooku xeexu ma ak moom bëriwu ma ak moom combat bi day wala day yéex combat bi lu mu laaj rek ñun ñu ngi ci lépp xeex ak bëri lépp ñun bawul dara lépp lañ andi tey loo bëgg mu def moom. moom bu taxawee ñu xeex maak moom man mu may gënal sax. taxaw ngeen xeex yéen ñu samp jaaga maak moom man mu may gënal. waaw parce que wax ji moo tax quoi li ñu wax. waaw combat wax la quoi li ñu wax. ah na tax ñu samp jaaga quoi xam naa bon man boo mooy gën a neex quoi. incha allah jaar dem leen. si jàmm. sant la bu baax la yaram bi lan lay yëg instant bi xanaa tàng jër ak musiba naaru laay ñaari yaram yu tàng la de musiba naaru laay moom nee na saytaane la la andil yaramam tàngul nee na yaramam dafa nee na dafa yàkkamti ñiy génn géew bi sax ba mu def la lim lay def ñun ceebu dëj lay soxla ceebu dëj <laughs> soxlawuñ ceebu ngénte soxlawuñ ceebu ceebu ceet wallaahi nee na ko jekk naa suuf la na génn seen diggante ndeysaan Ndefleng toj na Pofton tey Bébé Diène Bébé nee na ko duma la may dara damay samp ak yow jaaga Ndefleng ne ko sama ram dafa tàng te duma am ma temps bu bëre ak yow combat bu yàgg ndeysaan kon mbokk yi ñu gunge ya ñu yow ñu yónni yàgg rek yàgg bawul dara ñaari xale yaa ngi lewaatoo Bébé Diène moo leen wan ginnaaw Ndefleng moo féete kanam ñaari ngemb yu ñuul lan yor Bébé Diène moo takk moo tamit ci digg ci bopp bi ndeysaan Bébé Diène Ndefleng tey bi combat ragal naa benn song la combat bi ragal na benn song la oh, oh, oh saa booli tey mooy mag déggal lii ndeysaan walaay ndeysaan ndeysaan at baa ngi waxtaan ak ñoom abi suuf na génn seen diggante bébé jéen a ngi mbaar dox wuti ndef lek ñëw nañu daje ndeysaan cey bu ne rungum daje ay rungum daje ndeysaan mbokk yi ndeysaan benn bennal combat tactique la tey mu mel ni Bébé Diène Mbaye respecté na combat bi. non Bébé Diène respecté na combat bi moo tax nga gis mu andi état bi mu andi mais boo xoolee Ndefleng tamit macha allah andi na état ànd ak mbokkam te ku ne xam na ne dafa dafa dafa mën bis macha allah moom tamit. attention gis nga attention xeex nañ ca kaw daw jàppante gauche lay laaxee la laa oh lay laaxee illallah oh oh dooral ma door oh xeexu mbedd la daf lan door na Bébé Diène door sat ba jóg taxaw cey sal confiance Diourbel production yëngal na njaareem mi ngi noonu ndeysaan mbokk yi combat bi neex na neex na lool mbay comme ni nga ko waxee waaye moytul ma mbër mu ñam victoire ta dakaaru ndax ndaf lañ victoire la jógee ta ndakaaru ba am na yëg-yëgu delluwaat fa defaat ma ne na mbay waaw écrit parcelle la nekk fekk naa ko ci ñoom gànja fa muy entraîné te écrit boobu ku yaafus mënu faa nekk mais bébé jën tamit macha allah état bi mu andi ci combat bi mosu koo andi ci benn combat état ba baax na wane na ni kon fonk na combat bi ndax dafa ànd ak kii di Yamou ko fa mu nekk ca Mboro toog fa ay weer liggéey fa waaye mu mel ni Bébé Diène daa mel ni ku bi mu jël xaw na koo sonal tuuti nag jogo la demoon jogo la waajee jogo la demoon xam nga ne jogo dëkk la ba nga xamante ne bii macha allah dafa bari dafa bëri dafa bëri gàncax climat ba baax na bu entraîné tëdd moo tax résultat feeñ na ndeysaan ñu ngi xeex benn benn Bébé Diène mooy suuf ramasse bi ci suuf ndax ndaf leen mën na ko ndef leen day dóor ci kaw ramas ci suuf lu mu am jël ndeysaan waaye Bébé Diène a ngi direegu rek topp ko naa ci lii mu mbay gi diré gu topp ko tegal ko tableau jiital li nga xamante ne bii mooy pied gauche uh-huh. ki nga xamante ne bii mooy ndef la moom tamit jiital pied gauche ñaari ñaari ñaari ñaari ñaari normal lañu ñaari gàddu normal lañu waaye boo dee xool tableau bii koy Bébé Diène di tegal léeg-léeg day indi jafe-jafe mbër ndax mbër boo gisut ay bëtam rek jëmm ji da lay réer waaw loolu am na tableau bii mu ko tegal dire gu topp ko mën na koo andi li nga xamante ne bii mooy jafe-jafe su nga ñoom ñaar ña ngay lewaatoo jege nañu saako ya Ndefleng Bébé Diène journée Diourbel production attention Ndefleng maa mën a door ko gauche droite mais dalul en tout cas lu mën a xew làmb ji fi mu toll nii tasagun yaakaar ndax li ñu doon xaar moom lañ commencé bëre yàlla nañ ko yeggalee mbay waaw yàlla nañ ko yeggalee ndax ñaari xale yi ay ndaanaan lañu ay ndaanaan lan ay mbëri gox lan te bul ne dañoo xiifante nag ndax gis nga sànq bi leen tàllalee micro ci nekk nee na seytaane laa andil sama moro sama sama adversaire oh, oh. tey mbay waxati na en tout cas mu ngi noonu bébé jéen waaw mu xojul la àndal ñëw ndeysaan muy gox boo xam ne goxu làmb la Touba Njaareem attention def leen dóor na génnaat cokaas na benn génnaat waaye Bébé Diène dafa taxaw ci gàttam rek di ko déglu benn benn la muy bëre d'accord naa ci nasaan daa mel ni mbay Bébé Diène daa dégg conseil bi nga doon joxe. waaw gis nga gis nga mi ngi noonu dafa mel ni consigne lay bëree nag. consigne lay dafa mel ni consigne lay bëree gis nga direct na rek topp ko daf lañ dugal na benn génn mais est-ce que dal na. déedéet ku cokkaas la pour natt fan la tollu mbay. waaw la dalul. tey loolu gis nga. Bébé Diène daa bëgg moom tamit daa bëgg a dóor gauche droite dafa bëgg a dem parce que ku xam xam ne xeexkat la moom tamit waaw te boo ko dóoree day fay gis nga wax daje nañu daje nañu ca kaw daje nañu ca kaw laa ilaha illallah ndef lañ pompé na génnaat oh laa ilaha illallah tey bi combat ah lii neex na waay attention déet Bébé Diène fa nga jàpp baaxul na nga yooro Bébé Diène jàpp na ndax dana bëreem déet daa bëgg a jargandalu takk ba baaxul laa ilaha illallah d'accord ma d'accord ma su ma doon bébé jéen du ma may def leen lii mu jàpp noonu day génn motul motul d'accord ma d'accord daan laa ila jaxabal na ko daan na baaxul jàpp baaxul jàpp baaxul oh ay waay Ndefleng daan na ko roof na ko jaxabal daan ko pop pop baaxul ndeysaan daan na ko daan na ko daan na ko kila la daan war na laa daan ki fi xale yëpp bàyyi nga bàyyi nga jël bëreeg moom lu neex bëre nga ci jom ak fulla ba yàlla suñu borom ñëw ak ndogal la yàqul dara sa palmarès jërëjëf Mbaye. champion bi yow mu mel ni lii rediffusion nga nekkoon ndax sànq lan laa dégg nga ne arbitre soufflé moo ko fi bàyyi fan nga tegoon loolu. lan waxoon waa ji. da nga waxoon da ngaa tàng jër. lan laa ko waxoon rek. daan na la cinq fois dara xawagul. cinq fois lañ ko daan. cinq fois bu ñëwaatoon mun naa ko daan yu ba cinq. barke Sëriñ Bamba loolu foo ko teg. bi sax liñ ci liggéey bëriwul ndax dañu amoon blessure blessure lañu bëri nii. bi mu naan dañuy yëg cag-cag. barke boobu dañuy faj la gisoon naan cag-cag la ñuy dawal. boobu dañoo amoon blessure tànk. wala ndeysaan. waaw maa ngi nuyu waa dëkk bu baax a baax a baax. li mu bëri waaw li mu bëri. xam nga booy booy day jéem dëgër day jaay dëgër dëgër lu vite te ja te fit fee la jaane barke Serigne Bamba loolu ay champion kese ñoo fa dëkk wa barke Alxuraan Karim maa ngi nuyu sama waa dëkk bu baax a baax nga jëlee ci Thiaw Sène mais li ngeen dañoo sant ne da a xeex jàppante bi nga ko nga jàpp ba jekk ndax foofu da ngaa sant dafay génn nga profité ca baxaw daa bëggoon a génn ma ne ko randul foofu mais lan moo tax bi muy génn nga bàyyi ko yokk ba mu ne war naa mën a génn nga door wallaahi dama ko nax. nee woon mënoo bëri nag nee na woon mënta bëri. fii ba cinq fois su ma su fii dama koy daan kele bu bokkut ak benn kele bi. ma jaaxal da nga koo cabaxal yéeg mu daanu. zibiloo dafa dox ndànk dem sa. du ma moromam dama xam du ma moromam. du saf wallaahi du ma moromam. kon wane nga ni ma fi mu toll nii sa bët lu ci bébé feneen la. lu ci moom wallaahi xaalis moo boole woon rek avance ah, tabaski waxoon naa la ko xarum tabaski ci ponkali xanaa ponkali mooy ñoom boo ñaa giri bu mbake ñoo xam ne dañuy bu ñëwee ma defara leen bagage ku si ñëw nga jël avance barke Serigne Bamba ñoom ñëpp ah mbay kon loolu leer na di ci profité nag di nuyu waa sama waa dëkk bu baax a baax uh-huh. bi big moo el bandi uh-huh. moo dukan mooy poti ndef Saliou Sarr aw ma fa yàq moom mënta ñëw sax waaw kooku mënta ñëw ci làmb ji mënta ñëw wallaay asi bu fi ñëwoon day dee lépp moo ko dox xaalis bi ñu jëlee kaar yeeg yëpp añ beep barke Serigne Bamba moo ko dox kooku aw ma fa yam ñoom Baye Ngagne ñoom sama groupe bi Gundagaan ah, ñoom Lasko waa Pikine ñoom Mambal gars yëpp ñi nga xam ne ñoo ma gunge uh-huh. ñoom kii nu mu tuddati Yaro ñoom ñëpp maa di sant di gën bu baax ak ñu jàpp ci combat bi di sant sama papa bu ndaw kii bu baax di ko gërëm di sant sama waa dëkk bu baax a baax sama ñoom Ndiaye Tons su lay jën dëkk ba la jóge ba fii uh-huh. barke sëñ Ba jërëjëf champion waaw waaw ndeysaan mbokk yi remise baa ngi noonu def la nga ngi noonu ñu ngi koy jox drapeau maam soxna gay Catalina mi ngi koy jox drapeau am dekk mbokk yi ndeysaan macha allah mi ngi ko naan yàlla na la drapeau bi jik yàlla na la ndam li jik macha allah mi ngi eh, noonu micro bi mu wax ndeysaan